بالتواون تواون ñu doon wax euh, Maodo ci boppam nan nga ñu ko mën a expliquer kan mooy Maodo dëgg mooy kan mooy ki nga xamante ni nii lu jiitu ñaari waajuram di xame tudd nañ ko lu jiitu ñaari waajuram di xame jox nañ ko werd lu jiitu ñaari woy juróom di juddu defal nañ ko ijaaza defal ko litlaaq wane ni cëram mu ngi fi mais mu ngi dikki mais yaayam ak papam booba xamanteegul ndax Cheikh Oumar Fouti moo ci boppam moo ko déclaré sama maam Alpha Hima Yoro Weli mi jur dara Weli mu jur sama baay mu ni ko euh, am na jamono mu ngi ñëw ci sunu kanam am na góor goo xam ni dana dikk fii ñu di ko wax démb xuree ja dana mel nangam ak nangam su ñëwee na nga ko may sa jigéen bii ñuy wax faawaat di wele yàlla xamal na ma ni am na doom ji fiy juddoo doom jo góor lay doon doom jooju nag alaaji Malick lay tudd man Cheikhou Omar fii ma yem ci tariqa bi moo fi déparé ba ci xeer wala ci diggu ndox ma muy ngor lépp dana doon naasiri xaq bi xaq maam alfa fekk na booba moom ci soldaaru Cheikhou Omar yi ci la bokkoon ci ñi daan dem xare mais mooy mook yaayu alaaji Malick ñoo bokk ndeeg baay moom mooy moo formé Seydi Hadji Malick moo ko may werd moo ko defal lépp ndax Maodo bi muy am ñaari weer dugg ñetti weer ci biiru yaayam ci la baayam faatu maam Maodo gisul papam ba léegi mais nijaayam dafa mat nijaay géré ko yar ko defal ko lépp booba salaatul fatiha deret lay jar najaayam dem ci front bi di xeex ba ñu jëm ko paaka ci diggu bopp deret ja sang ko mu ñëw Cheikh Umar ni ko damm damm paaka bi dana mel ni jubbu kawar bi sax ci sa borom eh, ci ci sa bopp moom it ci ijtihaad boobu góorgóorlu googu ci la nekk nekk ci ba yàlla dogal la ko Cheikh Umar waxoon ñu agsi ca jëkki nañ benn jamono démb xuréeje mii ñu lay wax am téere bu mu soxla téere ba tudd ihmiraat di wàllu di grammaire ci wàllu arab ñu ñu ko pour nga am ko faw nga dem dëkk bu nuy wax gaaya mu ngi ci ginnaaw Dagana sept kilomètres après Dagana soo demee am na ku ñuy wax Thierno Malick Sow téere boobu daal da nga ko fa fekk moom mu jóg jóge Jolof dem foofa di wuti téere boobu bi mu ñëwee fekk na boobu yaayu alaaji Malick ñaari nit jot nañ ko denc kenn ku ci ne am nga ca bant Maodo am na ñaari mag yu mbokkal ndey mais bokkuñu bàyyi kenn ki ñu ngi ko wax Fanta Ñang kooku mooy taawu mam faawaat di am na njaboot ndax moo jur Serigne Seybatu Fall mi jàngal Serigne Mansour ak Serigne Cheikh Tidiane si tey xalifaam mooy sëñ Amsatu Fall moom laa jàkkaarloo ni kër moo dëkk Tëngéej moo fi tabax jumaa ji yàlla dogal bi góor gi ñëwee fekk booba maam faa wadd gannaaw maam Fanta Ñaŋ maam Abdou Boli Fall moo ca tegu Abdou fa Abdou Boli Fall bari na njaboot moo jur Malick Aïssa Fall ñoom Alioune Fall Abdou Boli euh, Malick Aïssa Fall moo jur ñi sant Fall dëkk Louga ndax moo dencoon soxna Zeynabou Sarr am ca ñoom Abdou Fall ak ñoom Marème Fall ak ñoom euh, Mam Fama Fall famille bi ibbiku yaatu ba yàlla dogal soxna faawaat ni woon dootuma ni góor mukk ubal néeg bi li des ci sama dund dama ciy jaamu yàlla ne ci daara ji di fóotal taalibe yi gan gu fi dikk ma di la wutu di la teral ndax xam yiw ak euh, teraanga ji nekk ci teral gan moom ndax yonti moo ni euh, teral leen seeni gan donte li yii fiir lañ moom mu saxoo loolu ne ci daara ji soxna si ku mënoon a bind la ndax ku daan naafile ci ay rakka la par guddi ba bët set te it ku mokkaloon alxuraan la rafetoon bind lool daan na bindal taalibe yi moom soxna faa wàdd di yaayu Seydi Hadji Malick ci diiru loolu nag ci la gan gi ñëw fekk lu jiitu gan googu ñëw maam Cheikh Omar Fouti moo njëkk a ñëw ci dëkk bi gaaya ni mu jógee Màkka bi mu fa nekkee yàlla dogal maam faa wàdd moo doon teral Cheikh Omar Fouti yi moo ko daan toggal moo ko daan defal lépp ci sababu loolu nag magi dëkk ba daje nañ bés ni dañuy yónnee Orefondé pour ñu ziyaar ji maam Cheikh Omar Fouti ñu ni dañuy tabb juróomi mag pour ñu dem yóbbu hëddiye yi ñu dajale juróomi mag yi ñu dajale sàmba yaali ñes la moo di loo ak ku ñuy wax baakar sàmb ak ku ñuy wax maam alfahima yoro bi ñu leen tabbee ñoom ñu war a dem ci la yàlla dogal maam faawaad ràbb benn sér ni sér bii ma ràbb dama koy mottalee wóllëre sama digganteeg sama sëriñ bi di Cheikhu Umar jël maam Alpha ma yoroon ni ko nag seet bii soo demee nag ma ko joxal Cheikhu Umar ni ko maa ngi mottali sama wóllëre ak moom am na ñu naan sax nee ko na ma ñaanal doom bu góor waaye déedéet na ma ndax booba soxna si dafa décidé woon ni dootul sëyateeg nit lu dul li ci des kom ñaari sëy am na ko ba yàlla weddi loolu tarbiyaam mooy ci daara jeeg taxawu nit ci biir loolu ñoom génn nañ jëm Oréfondé bi ñu ñëwee ba ca yoon wa bagage yi diis ñu jënd benn loo bi ñu jëndee loo wi ñu sëf ci bagage yi booba jënd jaay amul échange moo am da ngay jël li nga am jox kii bu dee dugub la nga soxla ceeb kii jox la ceeb bu dee yëre la nga jox lii ci jox booba loolu moo amoon ndax jamonoy tubaab bi la bi nu demee ba ci yoon wi ñu def loolu jënd benn loo ci échange yóbbu dem ba ca kër Cheikh Oumar ñoo ngi fa àgg bisu àllarba alxamis ba àjjuma ci ngoon pour ñu mën a gis euh, sëriñ bi aaday bëkk néeg xam na li ñaan buur ay waay dag yaa ay ñu xaw leen nag koñe mais maam Alpha jël benn séer ci séer yi neexal bëkk néeg bi néeg bëkk néeg bi doog leen mën a introduire Cheikh Omar dafa di tëli ne ana Alpha ma yoro mu ni ko labbayka mu ni ko ana séer bële sama jigéen ba jox ku ko ñu jël benn séer ci séer yi jox ko ndeke yàlla xamal na ko du séer bii mu ne ko alpha bii du sir ba an sama sir ci la ñu ne ko nag ñaari mën a am loo wi ñu def échange yëpp ci bagage yi te yaa ko moom séer ba nekk ci loolu wala li ñu neexal bëkk bi bi ñu buuree dem ci bëkk néeg bi la fekk séer ba muy bi ñu jox bëkk néeg bi naka ñu ko yëkkati ko jox ko ko mu jël séer ba foon ko moom Cheikh Omar ni fuuta daat ni doomi borom séer bii jamono ngi dikk daañu ko dégg foo xamante ni nii lépp luy yëngu jëm ci yonent bi moom moo ko mooy ki koy leerali daani ana alpha mu ni ko mu ngi mu ne ko nag bu juddoo werdam litlaaxam ijaazaam léppam dénk naa la ko nang ko ko defal ñu jóge ca yoon wu ñëw bi ñu dikkee yàlla dogal gan nga mu leen tegtaloon ñëw ci dëkk bi dal kër Cerno Malick Sow muy Demba Xuréja mi nga xam ni moom moo jur Seydil Hadji Malick dal kër Thierno Malick Sow ndax na Malick Sow moom nijaay la ci Seydil Hadji Malick ndax ki jur Thierno Malick Sow ak ki jur yaayu Alaaji Malick ñoo bokk bàyyi mi bokk lu ndey bi yàlla dogalee loolu gan gi maam Alpha yi ma yoro tëdd ba guddi gént gan gi am ak doom maam faa wadd doom ja siiwu lool mbooloo la topp leen xelam dem ci la ko Cheikh Oumar waxoon mu ñëw ci gan gi ne ko waaw yow de dama la bëggoon a may sama jigéen bii mu ne ko yéen xamu leen ma te bi ci desit yoruma lu ma def cib si te gan rek la mu ne ko yow yaa xamul sa bopp waaye ñun wax nañ la lu jiitu nga di fi dikk su dee loo jox soxna si pour can ndax bu can amul sëy du am sëy du wér maam Alpha ma moo yëkkati euh, euh, juróomi euh, kaaru njaxnaat jox ko. may ko maam Ousmane maam Demba Khourédia mii bàyyi Seydi Hadji Malick bi mu ko ko mayee moom ca jëlaat loolu joxe ko can ci maam Fawad ñu may ko ko mu nekk fa ak moom diiru lam fa nekk ci la maam Demba Khourédia yoonam mat mu dellu ñibbi bi ñu ñëwee ba ci tund Ferkolo benn montagne la bu nekk ci diggante na ak gaay maam Alpha ma yoro wele daat ni euh, maam Demba Khourédia waaw soxna si yaa ngi dem te nekk ngeen fi ab diir ndax yëgoo ci moom tàngoor wu nekkul woon ci moom ngir bu doom juddoo sa gannaaw kuñ koy tudde mu ne ko su fekkee doom juddu na fi di jigéen nag ma ko tuddeel Mati Demba sama jigéen bële ca Jolof su dee góor nag ma ko tuddeel Cerno Malick Sow mii ma seet si woon yàlla dogal ñu dem soxna sa ginnaaw ga doom juddu di góor fekk booba bàyyi Maodo génn na àdduna foofu leneen la loo xamante ni nii histoire am na yoo xamante ni dee su ko euh, ci kii ndax dafa xaw tabaarkalla bi yàlla dogalee euh, Seydi Hadji Malick juddu maam Alfahima yoro mii nijaay moo ko uuf ci ñaqu boppam mu jënd xar rayal ko tudd ni Seydil Hadji Malick muy Cerno Ousmane muy Cerno Malick Sow bii yàlla dogalee loolu ñu ko sant mu def ko mu topp ca di ca liggéey la muy liggéey ba yàlla dogal yoon waraat ko moom mu war a dem ci feexu Umar mu dem ziyaari ji ko bu mu demee ziyaari ji ko ca la ko wax ni ko jërëjëf alfa la ma la santoon def nga ko waaye tarbiyaam na mat yàlla dogal hmm. maam alfa yi mu yore nekk ci nekk ci ba bi Maodo tolloo ci njàng maam Alfaahi Mayoro moo ko dalal jël ko teg ci loxol najaayam na Malik ñu ko mottilil ko ndax sa cër ci moom yàlla def maam Alfa nekk na fa ba gën dëgër najaayam ni ko duma la bàyyi nga topp xale yi dëkk bii ndax dafa am luñ ma sant ci yow te ëllëg dafa am lu ñuy séenu ci yow ci la ko yebal mu dem dëkk bu ñuy wax boqal boqal digganteem ak gaaya bu matee trois kilomètres ci la yem foofu fala la téere bu ñuy wax risaala ci kër góor gi Muse Njaay gannaaw ga ci la fa jóge dem Podor ci kër góor gi ab Bitey fa la jànge tajwid jóge fa dem Njaabaali dugg biir Podor ak àll Fuuta bi fu ne Maodo di fa wër di gëstu xam-xam yoon woowu ci boppam def na fa ay at dellu si dikk bi muy dugg si ci dëkk bi ci la yaayam seen kuy ñëw yaayam ni maam ma yoro kéema seen day bu demba xuréy ja doon dund ma ni kee demba xuréy jaa bàyyu Seydi Hadji Malick waaye Maodo même mag seen bi mu fi jógeeg léegi dellu si njàng ba mokkal xaju fi maam alfa daa di génn ni ko Malick faa wadd boobu moom lañ ko daan wooye ndax boobu ajeegul mu ni ko labbay ko mu ni ko dellul sa tànk sa fa nga jóge woon nga yokk ji xam-xam ndax dafa am lu ñuy séenu ciw Maodo nettali na maam Umar Wele maam Umar Wele nettali sama baay Alaaji Seydou Wele mu ni ko yoon woowu ba ma ko sama najaay waxee keroog jooy naa ni sama baay moo dundul moo tax ñu def ni Alaaji Malick nee bi mu màggee nag ci lay soog a xam lañ ko doon wutal yàlla dogal maam Seydi xaaji Malick def fukki at dellu si dikk ñëw najaayam natt ko lépp dikk ci la ko jox ci benn ngoonu àllarba werdam lijaasaam litlaaxaam lépp muy professeur complet ci wàllu tariqa bi ni ko nag am nga droit tey am nga sañ-sañ ku la neex nga jox ko werdi bi ku la neex nga ijaasaal ko ndax lii lañ ma santoon ci yow waaye nag du tee toppal àll bi bii yàlla dogalee nag Maodo dem ba xàmmee ci la laajte ñu ne ko sa baay démb xuree jëla tudd ndax tuuru ceddo la woon ca la Maodo ngéntewaat baayam tudde ko maam Ousmane si moo waral boobu ba léegi indiwuma turi naan la démb xuree ji mais baayam cosaanu turam démb xuree ji la woon Maodo moo ngéntewaat baayam tudde ko maam Ousmane muy Ousmane ibnu Affan tur wa wéy Seydi Hadji ñëw na Dagana bi mu ñëwee Dagana fekk fa góor gu ñuy wax Maxtaar Lo mu laaj ko ni ko ndax fii ci yoonu sow yi amul fu ñu yokkoo xam-xam mu ni ko am na dëkk bu ñuy wax njiig faal am na dëkk bu ñuy wax kokki am na dëkk bu ñuy wax telere am na dëkk bu ñuy wax euh, pir gu rëy foofu yépp ay université la yoo xam ne yokkuwaayu xam-xam la fekk najaayam yëgal ko ni ko nag na nga dem dëkk bu ñuy wax ndar soo fa demee am na ku ñuy wax Mor Masamba Jéeri Jeen moom ak Maam Mor Anta Sali mi jur Serigne Touba ak sa baay ñoom ñett ñoo bokkoon daara ca daara yi ma Masamba Anta Ceebo ca kokki te Maodo jutul gis baayam mu sawar ca lool dem Mor Masamba Jéeri gëmewu ko yàlla dogal Mor Masamba Jéeri bi mu ko gisee rek cofeel ga dafa dugg moom it mu def ca taxawaay ba jël doomam maam Yacine Dieng may Seydi Hadji Malick waaye lu jiitu mu di ko denc. fekk na Maodo denc fa maam Roqoy Ndiaye en 1879 soxna Roqoy Ndiaye moom taawlu di jigéen muy soxna Faat si euh, ka ca topp di Sidi Ahmed si moo des Saloni ka ca topp di Serigne Babacar si muy premier xalifa Seydil Hadji Malick ñu toppoo ko noonu ba maam Yacine Dieng ci boppam ni ñu ko joxee euh, Seydil Hadji Malick mu am ca umu xayri yaasin ak ayda yaasin maam Safiyatu Ñang di yaay Cheikh Hadj Abdou ñu jox ko ko moom it mu taawloo jigéen ñu tudd ko Fàtti muy yaayu Serigne Bassirou Ñang ñoom soxna umu Malik ñoom soxna Nafi ñoom soxna Asiyatu ba gannaaw ga moom ñetti doom yi mu mujjee am góor lañu Alaaji suur miy bàyyi xalifa bi tey mooy taaw bu góor ka ca topp di Cheikh Hadj Abdou Aziz Dabakh boroom jagsaaw sama sëriñ ah, koo xam ni nag kooku moom macha allah foofu moom bu ma fa diggoo buñ fa agsee moom bari na lu tax ma xam tey jii lii moom ci boppam daan na ma ci poussé ndax dama gimmi gis ko mu bëgg lool bàyyim Seydi Hadji Malick di ci wax di ci jàngale nun ñii mosuñoo ñee def dara man de mbub mu ma mos a sol jamono moom a ko xotti moom Cheikh Hadji Abdou Dabakh daan yëkkati xaalis di ñu jox di wax teg leen seen fi tàggat ñu ci mbalaanu wasifa ak tariqa bi lu ne mu def ko nag muy koo xamante ni nii moom doo ko tudd fenn di sëgg